commissaire euh, Cheikhna Cheikh Sadibou Keita ñu ngi lay nuyu. am na ñu lay lool dalal la ci matinalu tey bi commissaire de police à la retraite nga alors euh, commissaire mhm. ñuy waxtaanee tey li xew ci àdduna mbas mi euh, nga xam ne dafa mel ni daanaka moo gën a yóbbu xel yépp ci Afrique surtout ba ñu fàtte yeneen mbir yu am solo yu mel ni terorisme est-ce que yow gis-gis boobu nga am tamit. waaw événement yu mel nii bu amee wala situation yu mel nii bu taxawee mën nañu yóbbu ci fàtte yeneen préoccupation surtout nag bu taree comme ni mbas ñi taree bu commencé yàgg alors qu'on se disait dans deux mois dans trois mois dinañ ci séparé wu dina dem ba dafa ñuy nasaxal par rapport ak yeneen phénomène alors que phénomène yooyu ñu ngi fii waxoon nañ ko au tout début il fallait qu'on tienne compte de cela il fallait que ñu bàyyi xel ci loolu parce que terrorisme daf fi nekk ak leneen ak leneen sur le plan sanitaire déjà am na ay yeneen préoccupations yi nga xam ne waruñu ko fàtte benn yoon tel que le paludisme mais sur le plan sécuritaire il faut que ñu bàyyi xel ci ni délinquance ordinaire bi ça veut dire que ñi nga xam ni dañu nekk rek ci biir réew mi di ayibal ak di def ay lu dul noonu ak terrorisme bi nga xam ne ay problèmes yu gën a compliqué la sur le plan militaire sur le plan politique il faut ñu bàyyi ci xel sinon dinañu leen mbetteel mhm. alors li xew euh, Niger euh, ci dimanche bi est-ce que dafa ñëw firndeel euh, que ni menace bi mu ngi fi ba léegi waaw effectivement parce que boo seetee nii du di diggante menace bi ñëwee ak léegi du premier événement bi avant avant yi tamit amoon na fa ay prémices yi nga xam ni mu ngi doon wane ni terrorisme bi mu ngi fi toujours suñu demee ba démb mu am ci li xew Niger daf ñuy confirmer ni effectivement terroriste yi ñu ngi fi te situation bu bees bu ñëw rek ñoom dañuy taxaw taxawaayu lu mu leen mën a indil ñu jël te su fekkee ni yow da nga xaw a euh, euh, jox importance benn situation ba xaw fàtte ni leneen mu ngi fi ñoom leneen loolu dañ koy dugal ci seen i mbir dugal ko seen projet seet nan la leen mën a apporter seet lan la ñuy mën a bette ñi nga xam ni xippi woon nañ fii démb mais ñu ngi commencé nelaw parce que leneen mu leen mu ngi yóbbu seen xel. seen attention te mbas mi ci situation yooyu mën a profité terroriste yi la bokk. mbas mi effectivement parce que lii tax mu mën leen profité c'est que déjà su fekkee ni yow da nga jël sa sa euh, capacité yëpp c'est-à-dire sa sa mën-mën yëpp ko ci benn place di xeex ak. benn phénomène te avant loolu amoon nga yeneen problème yi nga xam ni de plus en plus da nga leen di bàyyi loolu day favoriser ñi nga xam ni ñoom nga jàkkaar lool te ñoom seen projet nekk leneen terroriste yi dañuy am da ngay bàyyi terrain dañ koy occuper te attention rek xel rek di ngay sóor ci benn affaire soo ko xawee gëm tuuti rek ki nga jàkkaar loolu daf koy poussé mu mel ne rek ngay xeex nit mhm. soo xeexee mën na toj sa bët mhm. xeex boobu ngay xeex mën na ci profité door la courbe ñu bët mhm. loo phénomène bi noonu lay taxawee ñun dañu war a continuer malgré que les difficultés yi nga xam ni mbas mi indi na ko dañu war a continuer gën a teew encore ci terrain yooyu ñi nga xam ni seen liggéey la ñu leen di fàttale toujours que ni lii am na wante yéen war ngeen taxaw fii alors bàyyeeku boobu euh, nga xam ni moom la ñu mel ni euh, moom lañu gis ci réewu Afrique yu bari rawatina ci zone euh, Sahel bi nan la mu a mhm. jural ngaañte yooyu réew waaw parce que booy xool situation terrorisme d'abord phénomène bii ci boppam ah day phénomène bi nga xam ni déjà avant lii ñëw ba ñuy xaw gëmm fii attention daf fi nekkoon ñun ñuy jéem seet nan la ñuy ba lépp li nga xam ne ñoom tabax nañ ko pour jekkuñu parce que noonu lay nekkee dañuy tabax di dugal li tubaab di wax ay ay réseau dormant fu nekk ñu lal fa seen ay ndëgg sërëxal daal di fay dugal ay nit daal di placer ay nit di wut information di occuper terrain bi di wut fu ñuy dugale seen ay këfin di baliser di wut ñu ñu àndal ci biir réew mi loolu yëpp bu fekkee ni yow dem nga bay nelaw loolu dañ ciy gën a am doole mais bu fekkee tamit su fekkee ne sur le plan opérationnel c'est-à-dire li nga xam ne moom mooy congte ñin lay songee su fekkee yow da nga dem ba bàyyeetoo même sa dispositif su fi nekkee sax te xel yi dañoo nelaw par rapport ak nii terrorisme bi kat malgré que mbas mi mu ngi fi. Hmm. suñ la songee dinga am ay difficulté yu bëtum te ñoom ci loolu la ñuy profité. dañuy profité ci nii xëy na ñoom yow yaa ngi nekk ci leneen yaa ngi fi yaa ngi nekk ci leneen mais tamit sa xel mi newul ci lii ñoom seen xel dafay nekk ci leneen dañ ci am projet. Hmm. projet yi ñu amoon yeneen moment su contexte bi favorable pour ñu dugg mu dugal ko ci Sénégal exécutif du Sénégal dañ koy def ñun loolu lañu war a téye tout temps di construire nag ay réaction yi nga xam ni bis bu loolu amee ñu mën a taxaw jàkkaarloo ak ñoom. alors yenn réew yu bëri ci zone Sahel bi surtout instabilité moo fi nekk maanaam réew yooyu amul dal ci yeneen réew xëy na yu mel ni Côte d'Ivoire euh, instabilité mu ngi fay nuyoo ak beneen mandat bi Ouattara bëgg a wut te ñu njoxtu ne classe politique bi du ko ci bàyyi alors mu mel ni loolu tamit mun na bokk si liy euh, euh, mën a may doole terroriste yi bu fekkente ni am na taxawaay boo doon digle tey réew yooyu war ko taxawee lan lay nekk. xam nga yooyu dafay ay facteur li tubaab di wax ay facteurs additionnels c'est-à-dire dafay indi li nga xam ne day yokk joote parce que day ñëw fekk si lii nga xam ne déjà ñu ngi ci doon taxaw ku nekk di jàmbat mu indiwaat leen encore tegaat ci indiwaat beneen pose u insécurité bi nga xam ne nit ñi dañ ciy dugg parce que tey bu fekkee ni da nga am mbas mi am leneen yi tamit bu beneen amee yokku njëkk rek déjà nit ñi dañuy génn tali bu bu mbënd dañuy génn à plus forte raison su fekkee ni ay situation politique la politique pour ñi nga xam ne ñoo nekk yooyu situation politique doo xam loo leen di digal parce que ñoom tax ñu ngi seen biir ay projets yi nga xam ne day compliqué complication bi nga xam ni ñoom fi ñu toll dafay wóor ni yoon wi ñu ci ñoom yoon wi ñu gàtt ne mais ci loolu yëpp ak lu mu mën ci doon il faut que nit ñi nga xam ni ñoom ñoo yore responsabilité réew yi ak stratégie sécuritaire yi il faut que ñu mën a bàyyi seen xel ci li nga xam ni moom mooy tax foyer tension bu jog ñu mën ko contenir balaa muy jóg ñu mën ko contenir bu jógee ñu mën ka fay très rapidement sinon su lépp jaxasoo dina fi indi li nga xam ni su ëllëgee dinañ ko bëgg laay te terrorisme bi mooy question bi loolu la soxla encore hmm. loolu la soxla parce que terrorisme bi dañu am seen attention ci situation politique yi ci biir réew yi hmm. dañ koy tenir en compte déjà ñu ngi tenir compte euh, pandémie bi su ci loolu yokkoo su su suñu taxawaay moo war a tax gën a yokk suñu ay moyen sur le plan sécuritaire te suñu problème bu nekk ñu xool lan moo koy faj lan moo koy euh, lan moo koy tere mu am su amee tamit ñu xool lan moo koy faj ci li mu gën a gaawee su ñu deful loolu dinañu indil ay problèmes yu mat te du yem ci réew yi nga xam ni rek ñoom ñoo am ay foyer de tension parce que réew yooyu su amee problème day am ay exode. effectivement ay nit ñi dañuy daw di génn réew yi. di dem feneen. Mhm. day am jaxasoo ci frontières yi. Mhm. te loolu yëpp dafay situation yoo xam ni bombe à retardement lay doon toujours. parce que xamuloo kuy jàll xamoo kuy jàll ku dul mhm. jàll xamoo nit ñi nga xam ne jàll nañ ba pare nu nuy installé ak ñan ñoo nekk ci biir ak ñii jàll di ñii nga ay problème yeneen yi nga xam ne secondaire yi nga xam ne dañ dañ koy posé wu loolu mooy li nga xam ne moo gën a grave ci lii donc il faut que ñu prêter attention ci li ñuy def dooleeku ci ñàkk kaaraange gi ci frontière yi ah ba surtout surtout su fekkee ni frontières yi amul amul amul amul euh, sécurité. Hmm. yow nga indiwaat ay nit yu yokk rek cause d'insécurité la waxuma ay nit yu yokk ñëw ay gàndaay. Hmm. mais soo amee situation frontière bu am sécurité laa wax. Hmm. nga jëlaat encore ay nit yi nga xam ne dañuy daw dañuy dem di dellu si dañu am problème dañuy wut fu ñu muccale seen bakkan loolu cause insécurité la parce que euh, contexte bu nouveau la bi nga xam ni. d' abord nit ñooñu cause insécurité mais ensuite li ci mën a rax yëpp. Mhm. dafay day day yokk sa problème. soo baaxlee woon sécurité bi il faut nga yokkaat ko il faut nga taxawaat il faut nga gën a taxaw eh, dëgëral sa taxawaay pour que loolu ba ñu indi la trouble parce que déjà tey ci ni mu demee nii pandémie bi ci boppam attanul trouble fu mu am ay trouble day gën a grave mhm. parce que du vigilance li nga ci doon mën a def jour par jour li nga ci doon mën a def doo ko mën a defati te moom feebar la toppatawul jàmm toppatawul ay. Mhm. suñu déstabiliser woo sur le plan sécuritaire dinañu gën a mën donc il faut que ñu boole leen yëpp comme problème tënku ko benn place seet vraiment tous les jours suñu yeewoo suba ba guddi ñu seet suñu ay problème yi ñu am lan moo koy prévenir suñu taxawaay lan la kenn bañ a tayal kenn bañ a sonn. kon daal fagaru mooy mbir mi ci gàttal. fagaru fagaru mais fagaru du fagaru rek pour comme on le dit. Mhm. fagaru ak beaucoup d' attention ak organisation bu doy ak ay pexe yu doy ak ay ay ay ay moyens yu doy pour occuper terrain bi tout le temps tout le temps tout le temps di jiitu ñi nga xam ne ñoom ñooy créer des ordres. ci seen ay prévention foofu laa waxee fagaru sens boobu. prévention waaw waaw soo xam nga fagaru dañ ko li tubaab wax terme bu galvaudé. waaw quelquefois dañ dañ koy dañ koy jël rek fagaru rek ñu ni fagaru. mais fagaru bi day dañ dañ koy traduire ci réalité bi. Mm-hmm. xam ñun ñii li ñuy li ñuy menacé lan la. Mm-hmm. ñu xam lan la ñuy taxawee ba du ñëw. wala bu ñëwee nan la ñuy ba daan ko. nga ko alors euh, lu aju ci Sénégal bokk ci réew yi nga xam ne quand même yu raar yi la yi am stabilité ba tey ci ci zone bi ñu nekk euh, muy. Euh, mhm. zone sayel bi est-ce que Sénégal tey am na politique sécuritaire boo xam ni mën na ko may menace boobu mu mën ko dékku mën kaa séenu ba xëy na mun a anticiper ci yenn mbir yi. waaw avant mbas ñu ñëw déjà ñu ngi amoon problème Euh, terrorisme bi ak yeneen problème sécuritaire déjà amoon nañu taxawaay par rapport à ça tey bu ci mbas mi yokk bu ci yokkuwul dañuy war a gën a yokk li nu am wante amoon nañu amoon nañu taxawaay ak teewaay amoon nañu attention bu dëgër ci problème mu terrorisme bi du caaji nag dëgg mënoon nañ ko mais amoon nañ ko am nañu tamit ci suñu biir ay équipement ay équipement yi nga xam ne dafa dafa ànd ak xeex terrorisme am nañu capacité mobiliser wu c'est-à-dire euh, mobilité mën nañu déplacer suñu ay situation euh, d'armement am na nañu ay armes yi nga xam ni dafa correspondre rek ci tibu xeex yooyu xeexu guérilla nga xam ni xeexu fekk arme yu woyof la am nañ ko mais tey li gën a am solo mooy il faut que ñu gën a teew gën a ubbeeku gën a ubbeeku bi mooy ñu comprendre ni terrorisme xamul frontière te situation bu particulière la ñun ak ay réew yu bari suñu nee par exemple tey Niger li xew Niger daf ñu concerné parce que terrorisme la mhm. parce que su suñu amee projet bu mel noonu ni ay nit mën nañu jógee Niger pour ñëw exécuter ko fii Sénégal wala ñu jógee Côte d'Ivoire wala ñu jógee feneen pour ñu exécuter ko fii Sénégal mhm. donc ci ànd bi réew yi ànd dañu war a vigilant ci loolu UCA yi toile dëgër occupé ndoo terrain bi liggéeyandoo ci renseignement liggéeyandoo ci stratégie liggéeyandoo ci pexe yëpp nga na ne dinañu ci suuf si ak ci géej gi ak ci jaww ji ñu mën a am ay réaction yi nga xam ni day correspondre menace bi nga xam ne moo taxaw suñu kanam. alors si noonu est yow gis nga njariñu kuréel yu mel ni G5 Sahel par exemple. si G5 dama la wax ni doo ko critiquer rek daal bi ni baaxul waru fi nekk. Hmm. man dama gëm ni fii lii tubaab di wax multilatéralisme cest à ci diggante ay réew hmm. bokk na ci li nga xam ni moo ñuy gën a jox doole te G5 dafa bokk ci loolu ak luñ ci mën a am comme critique hmm. daf ci bokk te Sénégal projet wu G5 daf ko concerné hmm. mënuma concevoir G5 bu comprendre wu Sénégal xëy na da naan théâtre yi nga xam ni fa la opération yi am hostilité yi cong yi amagul fii ñun nekkuñu ci peut-être ci ligne de front bi c'est-à-dire ci jàkkaarloo bi newuñu foofu mais ñu ngi biir problème bi ñu ngi ci biir situation bi parce que ñu leen lu leen wokk xuruñu mm-hmm. te lii raam ñag bi la jëm mm-hmm. est ñoom seen projet mooy yem fële daal ni Sénégal bokku ci kii analyser warul wax loolu parce que xamul projet wu service yi ba fan la yem par rapport ak Sénégal mm-hmm. d'autant que ñun wóor nañu ni am nañu nekk fii xam ni seen préoccupation mooy jàppale terroriste yi pourquoi parce que terrorisme dafa bari pexe mm-hmm. dafa bari pexe li lalu ci biir yëpp yëpp yëpp dafa ànd ak ay pexe ak doole sinon dund dund dungaay bi yàggaay bi mm-hmm. donc ay ay ay G5 ak euh, organisation yeneen yi nga xam ni mën nañ ko def sur le plan typiquement entre pays africains militaires yeneen réew yi nga xam ne ñu ëpp doole par rapport ak réaction yi nga xam ne mën nañ ko am par exemple pour ñu mën a protéger suñu bopp ci jaww ji il faut que ñu am ñi nga xam ni wóor la ni ñii mën na la jàppale ci lii parce que loolu yëpp daf ci bokk. Hmm. terrorisme phénomène la bu grave bi nga xam ni soo ko natt ni nga war a nattee soo ëllëgee dina leen di loo mënul hmm. alors ñu jeexal ak euh, beneen jafe-jafe boo xam ne bi yoon ci biir Sénégal la nekk euh, muy euh, taxaw seetlu bu ñëpp def bi état d'urgence ak couvre fa jeexee ba léegi agression yi dafa gën a taqarnaase askan wi mu jural leen njàqare ban taxawaay la police ak gendarmerie war a am tey ngir dalal xelu askan wi. waaw ah, ci début bi effectivement bi mbas mi dooree remarqué ngeen ni très rapidement am na ñu fi profité ci loolu pour commencer def nga kat su dul noonu muy ay délinquants yi nga xam ni def nañ fi ay agression def na fi ay attaque banditisme loolu service de police yi ak gendarmerie xam nañu bu baax a baax a baax a baax a baax ni loolu mën na nekk parce que lii seen métier la seen métier la dañuy xam ni su fekkee ni benn insécurité sanitaire am na mën na am leneen lu ci lal su fekkee ni xel yi ñu ëppale ba ñoom war nañu prévoir loolu war nañ ci mën a liggéey tout le temps ñu ngi ci doon liggéey nag mais tey lii may gën a conseiller mooy ñu yokk vigilance yokk ay pexe yokk présence bañ a tayal yokk présence bi mooy il faut que ñu yokk di déplacé wu parce que li gën a wóor ci li nga xam ni moom mooy aar dëkkuwaay aar nit ñi mooy fu ñu toll gis yi fu ñu toll gis gendarme ku ci nekk ci ñoom ñu gis li ngay def pour que jàmm am mhm. te bañ nga bañ a taxaw ci benn coin rek taxaw naa li man gendarme maa ngi ni sama fetal ngeen wala man alkaati maa ngi ni sama fetal mhm. mais que ñu nekk la gis la dans l'action ñu sumb problème bi sumb solution yi ba ku ci nekk fi nga nekk mu wóor askan wi askan wi que yow mii yaa ngi def li nga war a def mhm. li ci des mottali la de quoi que suñu lëkkaloo davantage ak askan wi di bañ a négliger benn problème bu ndaw mbas mi ou pas mbas mi dinañ avancer ci problème mu gestion sécurité bi. Hmm. sécurité nag sécurité la kenn insécurité insécurité la kenn mënul di naa ko fi jëlee ba mu jeex tàkk tàkk hmm. tàkk tàkk tàkk tàkk mais mën nañ ko raw. Hmm. soo ko rawee nit ñi nañ am jàmm bu la rawee nag nit ñi du am jàmm. ñàkk ci jàmm commissaire leer na Keita ñu ngi lay gërëm bu baax a baax amoon mbégte mu rëy dalal la ci matinalu réew mi. jërëjëf merci beaucoup